commune Golf Sud tamit bu ñu fa ñëwaatee tamit euh, ñu gis ne ni Lat Diop mu fi def wax dëgg yàlla maanaam kenn xalaatul woon ni Lat Diop maanaam dinañ ko gañe Khadija Mahécor dina ko gañe hmm. Yewwi Askan bi dinañ leen gañe hmm. donc tey jii nii loolu noonu euh, ba nga déggee résultat yi mu nekk résultat yi nga xamante ni yu défor yu défavorable si partie au pouvoir Yewwi Askan bi gañe lépp fii si Guédiawaye yow loolu lan nga lan la la def waaw loolu moom je pense que Euh, am na ñeent yoo xam ne jàpp naa ne euh, effectivement mën nañ si duut baaraam bokk na lu tax Lat Diop euh, ñàkk mairie mairie bu Golf Sud benn mhm. mooy affaire troisième mandat bi ñaar donc boobu du moom projet mën nañ ne président la président la rek xam nga moom moom moom boo xoolee. affaire moom affaire la bokk. waaw dëgg la mu assumer ay position bien vrai que ne comme nu nga ko waxee am na lu bëri loo xam ne def na ko euh, si commune bi. mais avec quel moyen point d' interrogation. Mhm. mais lu ñu jàpp ne mooy. gis nga euh, lu projet de loi la rejeté euh, par en tout cas par les députés de Macky bu ma ko waxee noonu. Mhm. ak troisième mandat bi bokk na lu tax. candidat yu bëri effectivement nërmeelu mais autre chose. j'ai remarqué effectivement au niveau de la campagne de la Diop y avait beaucoup de folklore euh, folklore bi dafa bëri woon trop trop euh, fayonto bi ak Ousmane Sonko bi Dias aussi dafa bëri woon ça veut dire que moom au lieu que mu concentré si commune bi quoi c'est-à-dire wax programme am nag fan la bugg jëlee gol fan la ko war a yóbbu pour man effectivement communication bi daf ko raté euh, autre chose aussi beneen image boo xam ne gars yi rafetlu ko au de la commune de Gueule Sud image moom ak madame le maire euh, Aïda Sow Diawara parce que Aïda Sow Diawara nekk na fi pendant douze ans ñu décrier la gestion de la mairie de Gueule Sud mais su nekkee kooku yow da nga kaa yaayoo bu boobaa effectivement da naan ah mburu foofu ko farin donc kii su demee kii nekk yaayam donc ça veut dire que il y aura changement du am au parce que tamit lu nu gënoon a xaar mooy par exemple réduction de compte mais beneen affaire bi mooy liste bi noonu ko defee seen liste. danoo jël ñoo xam ne des rebelles comme sama genre yi ñu dugal leen si ay ay ay ay ay ay suppléants <laughs> ay suppléants mu wër ne li kii <laughs> il ne jamais passer jël ñoo xam ne ay liggéeykat lan nga yóbbu leen si yenn position yoo xam ne nii même boo gàñoon quatre-vingt-dix-neuf pour cent sax ñoom duñu jàll mais nga jël des gens yoo xam ne ay dóorkat lan ay xëtkat ñëpp xam leen si commune de Golf Sud bi nga boole ko sa liste même su nekkee am na deux trois personnes ñoo xam ne nii ce des gens ñu responsable ñoo xam ne ñu nu naw la si commune bi comme quelqu'un comme monsieur Amadou Fall euh, président du mouvement pour l'émergence de la commune de Golf Sud pendant quatre mu liggéey liggéey bu am solo moom mu ñëw effectivement bàyyoo ko moom mu doomoon ko aussi ñaanoon ko pour ñoom ñaar ñu ànd liggéey pour l'intérêt de la commune de Golf Sud mhm. paa bi am benn esprit de dépassement parce que xam ne ne moom euh, soxlawul mairie il n'a pas besoin Euh, comment dirais-je les moyens am na moyen yàlla may na ko moyen soxlawul salaire soxlawul avantage donc mu waroon nekk équipe boo xam ne nii équipe boo xam ne da ngay jël même bu fekkee ñooñu bokk nañ ci liste bi sax. Mhm. du tax ñeneen ñi nga xamante ñu ngi woon ci biir ñu nekk ay rebelle comme li nga wax. waaw nit ñi sanctionné leen ko mais c'est ça parce que tamit yow su nekkee da ngay jël des gens yoo xam ne ñoom amuñu emploi amuñu expérience jànguñu liggéeyuñu donc seen activité principale c'est de la politique. nga ne yow da nga bugg changement jël ñooñu def ko sa liste mais attendez-vous à ce que quand yu mal nii am boo jëlee effectivement yeewu askan wi dafa am bay liggéey bu am solo boo xam ne ñoom ñoo ko doon def au niveau de la commune de Golf Sud maanaam ñoom porte à porte la doon def ay proximité porte à porte di jàllale set message mm-hmm. et effectivement askan bi ñu su bëri ils ont écouté leur message et ils ont jugé vraiment que seen message vraiment lu appréciable raison pour laquelle la population a voté pour Yewwi pour Yewwi Askan Wi je donne un exemple quelqu'un comme Ibrahima Diop <laughs> mais moom souvent porte à porte la doon def aussi di dem si c'est vrai que ñaari côté yëpp def nañ ko mais jàpp naa ne daal euh, lu gën a tax quelqu'un comme Lat Diop mu perdre malheureusement euh, commune bi mhm. c'est tout sauf Macky Sall tout sauf Macky Sall loolu bokk na lu tax effectivement ñu bëri en tout cas même au-delà de lui son frère Aliou Sall loolu bokk na lu tax effectivement euh, leader yooyu en tout cas ou bien les maires la ñu ñu perte malheureusement euh, seen mairie. mais tey Golf Sud ñàkk ki nga xamante ne mooy la Diop. Mhm. par rapport ak lim fi liggéey par rapport ak lim fi wone ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo allié ak moom. Mhm. pour ànd ak moom liggéey Golf Sud. ñu ñàkk nit yooyu noonu yëpp ku ci mel ni ki nga wax léegi léegi monsieur Amadou Fall. Euh, ku ci mel ni tamit euh, ñoom euh, Malick Sène ak ñeneen ak ñeneen nga xam ne ñii ay liggéeykat lañ. Mm-hmm. te commune bi fii lañ dëkk. yor fi seen alal yor fi seen leneen leneen yor ay partenaires yor connaissance. Mm-hmm. mën liggéey xam nañu liggéey ñooñu ñoom ñëpp ñëwoon nekkoon si ginnaaw ki nga xamante moom maanaam Lat Diop commune Golf Sud ñàkk ñooñu noonu noonu. non pour man impact la mën a def si. pour man ñàkkuñu ko ah pour man ñàkkuñu ko. ku nekk gars yi doon doon ut aussi ah c'est ça la démocratie euh, ku gagné nangul ko victoire am mais su nekkoon yow da nga doon def ngir yàlla tax maan maanaam defoo pour sa bopp. je pense que lu nga doon continuer def da nga koy def quelqu'un comme monsieur Amadou Fall man j'en suis sûr il va continuer à faire lu muy def parce que depuis vingt ans nga nekk dans le social. tu n'es il n'est pas un homme politique donc boo xoolee ñun ñoo ko dugal ci géewu politique bi. Euh, donc kooku naturellement dafay continuer di def lu muy def bien vrai que nag du du du continuer ci dynamique politique bi parce que euh, nee woon na effectivement élection yi ñoo ko fi bàyyi moom lu mu bugg rek mooy accompagner les jeunes bu ko defee ñu changer golf mais moom j'en suis sûr et certain que il va continuer lu mu doon lu mu doon def en tout cas dina koy continuer di def parce que dafa nekk jaamu yàlla boo xam ne nii ay poste soxlu ko soxlu ministre poste ministre soxlu poste PCA soxlu poste député mhm. moom lu ko soxal mooy golf changé donc et là je lance un appel cette nouvelle équipe là genre nit ñooñu ñu dem seet leen vraiment waxtaan ak ñoom pour l'intérêt de la commune de Golf Sud mhm. mais aussi je dis aussi Macky mu fair play quand même mu bañ indi benn problème boo xam ne entre lui et Jésus pour man waratul am entre moom ak opposant en tant que maire tu es le représentant tu es tu es le représentant effectivement de la population à partir du moment là na leen jox tous les moyens nécessaires pour qu'enfin ces gens-là puissent travailler pour la population sénégalaise donc loolu daal côté boobu côté bon en tout cas dans loolu laa amoon daal lu may wax euh, par rapport à ça waaw dama doon wax sànq mooy que ni lu ci mel ni ñooñu noonu ñoom Malick Sène ñoom euh, ki nga xamante ne mu ñoom monsieur Amadou Fall ñooñu noonu ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante liggéeykat lañ liggéey rek moo leen tax a jóg mhm. ñu bedd ñëpp ñoo gis na ni Lat Diop moom mooy profil bu baax bi pour ñu mën a ànd ak moom ndax xam nañ ni ñoom li ñu bëgg waajooju noonu loolu la bëgg ñu ñàkk maanaam commune Golf Sud ñàkk ñooñu noonu ay ñoom euh, yeewi askan bi gagné est-ce que ñoom dinañu am grandeur démarche ñooñu noonu ne leen kaay leen ñoo ànd liggéey waaw su nekkee ñoom développement moo leen yitteel comme nu mu ko wax affaire élection locale affaire gox la man lu ma gëmoon mooy gis nga élection locale man jàpp naa ne sax liste unique moo fa a am vraiment ñu jël toutes les compétences ñu xool des gens yoo xam ne ñu lu leen yëkkati mooy le développement de la commune ñoom ñëpp ñu bokk liste dem liste unique bu am Touba moom moo waroon am comme bu am Cambérène Touba un peu partout pour man élection locale élection locale noonu la war a demee quoi on prend des gens yoo xam ne ñoom lu leen intéressé mooy développement ñu ñu ñu nekk si mais aussi je dois préciser pour euh, cette nouvelle équipe ñu leen a dalal jàmm lu ma si gën a intéressé man mooy réduction des comptes parce que boo xoolee golfe surtout le littoral dañ ko saa-saaxe woon loolu bëgg naa vraiment ñu def ay étude vraiment ay audit quoi ñu auditer vraiment foncier bi ñu jox ñu parce que nu aussi avec euh, benn mouvement bu noonu wax euh, comment dirais-je encore. Euh, seen mouvement bi yéen. saytu. Ah, on souhaiterait quand même. vraiment amoon ay question yoo xam ne nii ak ay lettres yu ñu déposé woon au niveau de la mairie de Ogoul Sud. ba nii may wax ak yow amuñu woon benn réponse mm-hmm. yaakaar naa nouvelle équipe bi réponse bu doon xaar incha allahu rabi dinañ ko am. Mm-hmm. te lan moo taxoon ñu wax loolu parce que du noo gisoon ne il y avait clanique benn gestion boo xam ne nii c'était pas du tout transparente ñu ñu ñu souhaité woon quand même am ces réponses là pour mettre ça pour joxe loo pour jox loolu effectivement askan bi donc jàpp naa ne daal. nouvelle équipe bi en tout cas c' loolu lañ leen di ñaan te ñun aussi loolu dinañ siy dox maanaam ñu auditer foncier bi benn vraiment ñu ñu jox ñu toutes les délibérations pour askan bi xam nu mu demee mais aussi ñu ñu auditer la gestion de la mairie parce que yow su nekkee da nga am ay budget boo xam ne mu ngi toll si huit cent et quelques millions lu si ëpp nekk budget de fonctionnement loolu aussi war na nañu def benn jàngat ñu xool ñoom budget bi naka lañ ko doon utiliser. loolu daal ñun ñoo leen si xaar. waaw loolu leen siy xaar. suñ jugee foofu noonu ñu daaneel si nga xamante mooy maanaam Aliou Sall. moom mu nekk rakku Macky Sall moom tamit euh, nekk si mairie ville bi Ahmed Aïdara gagné ko. Mm-hmm. Euh, loolu. c'est vrai que pour ñu bëri bon dina ne loolu surprise la donc mais xam nga Aliou Sall aussi. quoi qu'on puisse dire quand même am na lu bëri lu mu def Guédiawaye il a un bilan boo xam ne mun na ko défendre franchement. Mm-hmm. Euh, comme lu ñuy wax rek malheureusement malheureusement il est le frère du président de la République mais aussi il a eu à aider beaucoup de gens ñoo xam ne ils ne sont pas reconnaissants maanaam lu mu def si ñoom delloowuñ ko ko delloowuñ delloowuñu naar bi njukkal. sa veut dire que aujourd'hui am na ñu bëri grâce à lui moo leen jàppale wutal leen ay emploi mais ñooñu dañ ko tourner le dos maanaam liggéeyuloon ko si terrain dañ ko wor. dañ ko dañ ko bëgg wax ne élection yii nii nii nii si sentir wor. bon loolu laa jàpp parce que jàppoon leader yi ñoo xam ne vraiment moom moo leen defar ba ñu nekk tey ay personnalité pour man ñooñu jàppale woon ko parce que tey da ngay dem si koñ yu bëri loolu jawaay mun nañu woon avancé ay tour ñooñu kañ leen gëj a gis depuis bi Aliou Sall mu jox leen poste de responsable lañ leen gëj a gis ba si élec ba si veillu élection yi ñu ñëw accaparer lépp jàpp na ñoom ñoo war a jiite lépp loo xam ne xaalis bu ñu war a distribuer si seen loxo la war a jaar mais loolu les gens vont vous dañ gars lay xool mais les gens vont s'exprimer à travers les urnes donc ce qui fait que malheureusement loolu laa gis donc et lu may wax nii c'est une observation boo xam ne nii yow mii gir yaa ko gën a xam parce que euh, nous on a fait le tour par mm-hmm. exemple de la commune de Golf Sud et on a on a à peu près euh, à chaque fois bu ñu defee une petite enquête par rapport ñoo xam ne nii ñoom ñooñu leader x wala y mais on dit que non ñooñu defuñu fi dara seen bopp lañ fi nekkal. donc loolu mu nekkoon benn observation boo xam ne loolu gis nañ ko ci terrain bi depuis belle lurette. et Yewwi aussi bon ñoom ils ont utilisé. les failles euh, vraiment de ces gens-là pour pour pour am pour am. pour am dara quoi donc euh, ma daanele fenn ban kàddu ngay dénk ñi nga xamante ni ku ci mel ni ne ay dara ak Khadija Mahécor ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jiite euh, ville de Guédiawaye ak commune de Golf Sud. waaw bon je ñu nekk des patriotes ah ñu nekk des patriotes te xam ne askan bi moo leen tànn wóolu leen jox leen ñu ñu ñu jiite. ñu bañ a def comme ñeneen ñi au fait cest a dire nan nan nan teg lépp si yoon ci transparence équilibre yi bi te encore une fois ñu bañ a ñu bañ a naagu te loolu c'est très important loolu moom je pense que dañ si nañu bañ a naagu et j'espère que euh, des gens là en tout cas am na nañu si ñoom yaakaar euh, di ñaan yàlla effectivement ñu réussir ci seen projet parce que bu ñu réussir euh, je pense que ñun ñëpp ñoo réussir parce que lu ñu soxal aujourd'hui mooy le développement de la banlieue et de manière générale le développement du du Sénégal. maintenant quant à effectivement naturellement comme nu ko waxee rek. bien vrai que ci société civile bi la ñu bokk mais sot bu jotee dañuy sot wax bu jotee dañuy wax dañuy wax avec toute responsabilité et effectivement on a absolument rien à regretter lépp def rek nekk la loo xam ne c'est un choix. vraiment assumé mm-hmm. te incha allah rabi noonu la ñuy. te bu jeexee jeex na bu jeexee jeex na te comme ça que nous allons continuer. jaajëf euh, euh, lan ngay tëjee. waaw bon vous remercier d'abord vraiment remercier la donc euh, remercier toute la population sénégalaise euh, particulièrement celle de la commune de Golf Sud di leen wax ne nag je pense que liggéey bi tàmbali na na gars yi vraiment liggéey te bàyyi folklore bi mm-hmm. donc loolu amul njëriñ. donc euh, pour daal foofu la leen foofu laa leen euh, invité mm-hmm. on essaye de changer enfin vraiment la commune de Golf Sud donc euh, je pense que c'est ça donc du jox ngay yi rendez-vous rek à très bientôt